donc bokkuñu bokkuñu kii ñun suñu taw bëriwul noonu donc ba bu suñu sol bi recevoir taw yu bëri surtout zone yi nga xam ne ay lag la woon ak yooyu ak sayaan mais ndox mi day génn par exemple je doon donne benn kii stade du Barry ci lan lañ ko teg tabax lag bu HEC wu moo tax tout le temps day fees saa à dire que ni boo jëlee rek nga bëgg a teg lépp ci benn Euh, ndodd benn gouvernement te gouvernement boobu am courage investir ci lu ñuy suul loo xam ni kenn du ko gis. mais gouvernement bu supprimé woon non mais il y avait des nekkoon kenn investirul mooy tuwo mais gouvernement bu supprimé benn institution parce que jàppoon na ne. loolu bokk na ci liy tax xëy nañu ñu am. pexe non doo woon wax mais aujourd'hui institution yooyu ñëwaat nañu euh, Sénégal am jafe-jafe. ba tey ci waaw parce que parce que dafa am loo xam ni dañ ci bokk ci monde bi kuréelu monde bi. institution yooyu ngeen di bañ dafa am bu dee conseil économique sociale et environnemental amul dëkk booy dem te amul au conseil directive euh, union européenne la union ah bon? africaine ah donc buñ ko nasaxal parce que nit ñi ñu ngi liggéey <laughs> peut-être que liggéey bi ngeen dul xam clair voilà c'est clair alors Serigne Saliou. Mhm. Euh, bu ñu déggee monsieur Cissé euh, inondation yi c'est tout à fait normal état mi ngi def ay progrès même si askan wi ñu ngi ci biir ndox mi euh, lan la ñu mën a comprendre loolu. waaw mais man dama xaw a jaaxle parce que Alassane li mu wax mu ne quatre-vingt-quatre yi nga xam moom la fi taw keroog kër zone kër Massar bi moo bëgg a wax ne loolu lu bari la. kon de li taw kër Sambakan bu ko tawoon dakaar moom je crois que ñun ñëpp dañu gën Dakar parce que kër Sambakan 192 millimètres la taw jour boobu 192. xanaa xam nga ne Kër Massar zone yi nga xam ne il a moins plu dans le Sénégal Kër Massar ci la bokk Sénégal zone yëpp presque ay 100 jëm kaw ci la taw le problème en fait c'est pas ça gis nga euh, Alsane tey dafa dem ba nga xamante ne paanu ndox boo ko jëloon tuur ko Kër Massar ci yenn zone yi mu inondé xam nga lu ko waral c'est parce que ndox yi dañ fa fekkante. et que état bi ñoom ay solution structurelle mënuñ fi dara c'est-à-dire ils n'ont que des solutions conjoncturelles loolu mooy waral chaque fois bu fekkente ne am na mbënd mu tuuti rek on déclenche le plan Orsec plan Orsec bi dafa dem a dem a dem ba fi ne nii sax c'est devenu un plan banal alors que en réalité boo gisee même plan Orsec bi ñun fa nga xamante ne fa lañ ko jëlee woon ñoom sax dañu bàyyi plan Orsec bi léegi léegi nit ñi dañuy mettre en plac des plans de contingence xam nga plan Orsec c'est un plan alors um plan de contingence c'est un plan préventif prédictif je crois que ñun tey foofu lay ñu waroon toll waroon nañ dem de sorte que tey bu fekkente ne yëf yi jaaroon nañu yoon ñu mettre en place un plan de contingence dans les normes tey même mbënd su amoon de laa mbënd su amoon population yi seen wàllu bopp ñoom ñooy njëkk am réaction avant même que l'État n'intervienne mais fii état bi chaque fois c'est lui qui intervient mais boo xoolee au sommet la pyramide alors que au niveau de la base ñoom ñoo war njëkk mën a intervenir ba pare état bi door a mën a ñëw intervenir mais ça ne se fait pas comme ça parce que xamul tax aussi chaque fois situation yi mel nii dafa am ñoo xam ne ñoom ñoom lay arrangé parce que y a des marchés moto pompe yi par ci par là déjà rek gis nga scandale bi nga xam ne moom la waa libération yi euh, euh, ci seen seen seen édition tey bi mm-hmm. parce que am na xam ne ils se complaisent dans ça bëgguñu mbënd mi jeex ils feront de sorte que chaque fois que non seulement les ouvrages ne seront pas bien réalisés les gens auront toujours des marchés de complaisance mhm. et en plus aussi nit ñi ils vont se faire de l'argent au détriment de ces pauvres là xam nga ci metti mooy mbënd toujours mais ce sont les pauvres ces gens là qui habitent dans les quartiers UB là ñi dëkk ay Almadies dëkk ay Point E ay fan yooyu doo leen dégg mu ko ci affaire mbënd c'est-à-dire que donc ñi nga xam ne ñoom ñooy pauvres yi ce sont ces gens là qui souffrent le plus. ci mhm. affaire affaire mbënd mi. ça mhm. dire que aussi l' quelque part a failli vraiment dans sa mission quand même de protection des populations. Mhm. te li ko waral aussi moo ni il n'y a pas un plan d' aménagement c'est-à-dire fonctionnel dans ce pays de tout temps on a parlé de plan d' aménagement mais gis nga Sénégal tant que amuñu un plan d' aménagement boo xam ne nii danañ ko respecter que toujours les gens vont habiter là où ils veulent moo tax bu fekkente ne tey ndox mu tuuti ndox mu tuuti rek tuuru na ci ci ci réew mi ci yenn zones yi da ngay gis na daf dafay. dafay dafay taa zone Kër Massar bii. Mhm. je vous assure gis nga lii ñu nekkee nii. ba déwén encore ils seront dans ñaanu lu ma leen ko. mais mhm. ils seront toujours dans même situation. Mhm. parce que l'État ne fait pas l'effort nécessaire pour que ñoom ñu génn ci loolu s'il y a la nécessité parce que on a dit dans le plan de dans le programme décennal. il y a une de plan de relogement relogement des populations yi nga xam ne sinistré mhm. mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ñi nga xam ne ils sont dans des zones yoo xam ne inondables mais pourquoi du leen fa génnee yóbbu leen dans des euh, comment dans d'autres secteurs reloger reloger leen leen fa complètement mhm. mais mhm. duñ ko def on va essayer de te xamal ma li gën a grave ma ma daan leen fa mooy une comme la SNHLM ñoom dañu dem jaay nit ñi foo xamante ni c'est des zones bopp dañu waroon topp état parce que aussi état bi ci boppam lépp leen dal leen dal ñoom ñoo ko ñoo ko tey mënuñu accepter que. une comme la SNHLM. nga xam ne mhm. ñoom dañoo war a viabiliser. Mhm. ba pare aménager espace bi nga xam ne fa jaay nit ñi. Mhm. ñu jaay leen fa ba pare alors que xam nañ ne zone yu des zones inondables. et la société n'est pas n'est pas inquiétée. ils n'ont rien en aide. moo tax on doit poursuivre euh, professeur ñuy wax projet bu ñu déggee fi mu toll nii inondation yi dafa mel ne euh, plan décennal de lutte contre les inondations sax dañu ko teg ci ginnaaw ñuy gën wax euh, mooy bu projet bi nga xamante ne euh, def nañ ci 15 milliards de francs CFA yoo xamante ne euh, euh, ministre bi bi ñu ko déggee mooy les travaux ñu ngi ci taux d'exécution bu toll ci 95 pour cent mais ndax tey luy gis Kër Massar nañu wax ne liggéey bi yemb na ba yegg foofu waaw xam nga Fati man je dans les chiffres aw ma benn expertise dans ce domaine mm-hmm. donc du ma ci mën a sori mais dinaa la wax ñaar yoo xam ne kenn du ko dindi muy inondation muy lu bëri soo gisee mu am ci réew mi depuis Senghor jusqu'à Macky Sall en passant par Abdou ab laay waa Wade c'est ñaar a fi am d'abord farfarloo dinaa la dakkal nga dinaa la daggal nga dëkk parce que jigéen nga parce que ñoo bokk sëriñ parce que ñoo bokk parti népotisme et clientélisme politique moo tax ñuy jël ay nit di leen dugal foo xam ne waruñ fa dëkk parce que ñaar moo fi am man su ma nekkee kilifa nekk sikaab wala ma nekk directeur HLM wala ma nekk un ministre dama am responsabilité am compétence am loo xam ne dama ko war a layoo ak sénégalais yi war ko layoo ak yàlla parce que jàpp naa ne tey am na ñoo xam ne ñu nga tëdd ci seen biir bàmmeel loo xam ne dañ leen ko joxoon ñu foyee ko ba tax ay nit tey nekk ci mbënd mi xaw ma yàlla lu muy dogal mais gëm naa ne ils ont des comptes à rendre beneen bi mooy li gumba la wax je suis d'accord avec lui Olof Ndiaye day wax mu ne boo yàkkamtee ci yàq këppal cin li mais loolu c'est solution radicale li ma bëgg a wax mooy milliards yi ñuy wax ci affaire inondation qui a traversé ces soixante ans d'années buñ ci defoon milliards yëpp waxuma mbënd mi dootul am de mais tey canalisation dina am foo xam ne nii Sénégal du yegg foofu ci mbënd li kon xaalis bi dañ koy lekk mooy li am ci réew mi xam nga ban preuve laa lay jox soo ma munee fàttali nga fàttali ma am na benn ministre boo xam ne c'est une dame dénkoon nañ ko fii un ministère chargé je crois des affaires humaines. requalification Fatou Tambédou wax lu mu wax assemblée nationale. les fonds de mon département sont détournés. mais loolu ministre moo ko wax. man waxuma ko. effectivement. muy ministère muy éducation muy santé les fonds sont toujours détournés suukar lem te sombi saful loolu lañ nekkee ci mim réew te tant que ñu ngi koy def Sénégal yi dañu war a xam ñu ngi dem ci ay élections yan maire la ñu war a tànn bu ñu demee ci présidence ñu jël ay nit ñoo xam ne dañoo am générosité yërëm Sénégalais yi je pense à tous ces Kaolack quoi parce que falaa dëkk man sama kër Kaolack ndox mi daf ko nangu aujourd'hui il faut que ma defa ay millions pour mun ko tabax à Sam et loolu lépp xam nga lan la ay kilifa yoo xam ne dañoo ñëw ñu jox leen responsabilité ñu foowee ko loolu rek laa am lu ma ciy wax. Mhm. beneen bi nga may ma ma def benn hors sujet bu ndaw rek. par rapport à l' affaire Bougane Gueye parce que man je commence vraiment à avoir peur dans ce pays là.